سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لق لساني وحللا منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبد واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel te di leen balu aq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal comme ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci ay bis jot di fàttalenteendoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu ci suñu émission bi nga xam ne moom lañu ñu tudde jataayu xam-xam bi jataayu xam-xam di ci euh, fàttalenteendoo ak yéen lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu ci suñu jataay yooyu la ñëwaat rek di sof fi nga xam ne foofu lañu taxawoon ci suñu bind bi weesu nga xam ne ñi ngi woon ak yéen ci bunt bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu jagleel euh, gëm gi ñu war a gëm yonente yi alayhimu ak li nga xam ne moom lañu war a gëm ci ñoom yonente yi sallallahu alayhi wasalaatu wasalaam waaye li nga xam ne itam dafa euh, doon loo xam ne dafa yàlla mu nekk ci seeni jëmm ak yi nga xam ne dafa jomb mu nekk ci seen jëmm waaye itam yi nga xam ne dafa dagan mu nekk ci seen jëmm rek kon waxoon nañ melokaan yi nga xam ne dafa war a nekk ci ab yonent lu mel ni euh, dëggu maanaam dëggu mooy lu mel ni dëggu dëggu buñu ko waxee mooy lépp loo xam ne moom la ñuy xibaar ñu xibaar ko ca anam ga nga xam ne noonu la amee bañ caa yokk bañ caa wàññi di jotale message yi nga xam ne moom la leen suñu borom bi subhanahu wa taala yónni ñu koy jotale ci anam ga nga xam ne euh, noonu la leen ko suñu borom bi subhanahu wa taala jotale loo ñaareel ba itam ñu waxoon li nga xam ne mooy amaana ñu am amaana euh, bu ñu ko waxee mooy ñu fexey ba lenn luy nuru ak mooy ñoom yonente yi alayhimu salaatu ñu bañ koo def maanaam ñuy sàmm seen seeni cër di ko wattu di ko aar ci lépp loo xam ne lu araam la wala lu ñu sib ndax ñoom ay royuwaay lañ te it lépp loo xam ne moom lañ def dañ leen cee war a roy loolu moo tax kon lépp lu ñuy def rek euh, lu ñu war a mën a roy lay doon ba tax na kon du ñu am sañ-sañu mukk di mooy suñu borom bi subhanahu wa taala ci seeni cër euh, ba loolu di yóbbee ñi nga xam ne ñoom la ñu yónni ci ñoom di doomu aadama yi di mbindeef yi di leen roy di leen di roy ca loolo jàpp ne loolu dafa dagan kon loolu itam mooy am war nañoo am kóolute bu baax a baax war nañoo sàmm bu baax a baax li nga xam ne moo di seeni cër beneen ba itam ci melokaan yooyu waxoon nañ ko mooy jotale li nga xam ne moom la leen suñu borom bi subhanahu wa taala yónni ndax yonente yi alayhim salaatu ay message la leen suñu borom bi subhanahu wa taala jox di leen ko jottali loo ñi nga xam ne ci ñoom la leen yónni muy mbindeef yi kon message yooyu amuñu ko euh, sañ-sañu ko nëbb wala ñu bañ koo jotale kon layu ay mbir la yoo xam ne wala ay melokaan la yoo xam ne dafa war a nekk ci jëmmi yonente yi alayhimu salaatu wasalaam kon melokaan yooyu itam seeni safaan ni nga xam ne noonu la melokaan yooyu war a nekk ci seeni jëmm noonu la seeni safaan mm, jombe eh, muy nekk ci jëmmi yonente yi alayhimu salaatu wasalaam kon ñi ngi taxawoon ci suñu bind bi mujj bayit bi nga xam ne ci la sëriñ bi di ne tabliquhum wafaauhum ma umira bi an yuballigu xaqan lir wara sëriñ bi di continuer ba tey di wax ne alkazibu euh, wax lu dëgg bu ñu ko waxee mooy lan mooy xibaar bi ma ca la nga xam ne xat xaalafa wuute na ak li nga xam ne am xat xaalafa wuute na xaqiqatal amri ca dëgg-dëggi mbir ma walam yu saadifaate dëppoowul ak mbir ma na nga xam ne noonu la amee kon sëriñ bi radiyallahu anhu nee na bu ñu waxee wax lu amut euh, buñ ko doon xam ne mooy lan mooy nit ki wax ab xibaar boo xam ne wuute nag ak dëgg-dëggi mbir ma nga xam ne moo xew waaye tasewul fenn ak dëgg-dëggi mbir ma nga xam ne moo am te loolu dafa jomb ci euh, euh, àq yonent alayhim salaatu salaam waaye dafa jomb muy jikko joo xam ne ab yonent daf koy melowoo ndax bu fekkoon ne ab yonent daf ko melowoo bu boobaa dañuy jàpp ne kon loolu lu dagan la ba tax nit ñi dañ koy mën a def euh, te wax lu du dëgg moom yàlla daf ko araamal waaye yonent bi alayhi salaatu salaam itam waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam itam daf koo araamal comme li nga xam ne mooy dëggu lépp loo xam ne moom lañuy wax doon dëgg ni mu ware mu nekk ci seen jëmm noonu la wax lu waroo ak dëgg euh, jëmbe ci seen ak ñoom yonent yi alayhi salaatu wasalaam euh, amal xiyaanatu daal wor fa fi'lun mooy jëf joo xam ne xad jaraa daw na muharraman di lu araam aw zakarahatin walla mu di lu ñu sib yura joj def na ko gis bu ñu waxee xiyaana muy wor li ñu ci jublu mooy euh, jëf joo xam ne xew na maanaam jëf joo xew na woo jëf joo xam ne xew na waaye jëf la joo xam ne dafa araam walla muy lu ñu sib maanaam ab yonent bu defee lu araam wala lu ñu sip loolu mooy kóolute gi ko suñu borom bi subhanahu wa taala sàmm woon uh, wor na kóolute googu waaye wor na suñu borom bi subhanahu wa taala nga xam ne moo ko wóolu woon ba yónni ko kon xiyaana buñu ko waxee dëgg-dëgg mooy uh, def mbir moo xam ne dafa araam wala dañ koo sip dafa araam wala dañ koo sip te loolu dafa jomb ci àq yonent alayhi salaatu wasalaam kon wor ci seeni cër muy def lu araam wala wax lu araam wala def lu ñu sib wala wax lu ñu sib loolu itam suñu borom bi subhaanahu wa laa def koy araamal ci ak yonent kon ni nga xam ne noonu la euh, warale ñu war a nekk ay euh, mbindeef yoo xam ne ñu war nekk ay mbindeef yi nga xam ne dañoo ame li nga xam ne mooy amaana noonu la jëmbe ci seen jëmm ñu nekk ñoo xam ne jikko ji ñu tudde alxiyaana muy wor ci seeni wax wala seeni jëf ci def lu araam wala lu ñu sib loolu dañ ko jombali ci seen jëmm ñoom yonente yi alayhi salaatu wasalaam adamu tablirin ñàkk a jotal allazi la nga xam ne xat umira digaleef nan leen ko bi an yu balliqu ci ñu jotal kit maanaam ak nëbb jaraago xew na ne na adamu tabliix bu ñu ko waxee mooy ñàkka jotal li nga xam ne moom la leen suñu borom bi subhaanahu wa taala loolu bu ñu ko waxee mooy nëbb message yi nga xam ne moom la leen suñu borom bi subhaanahu wa taala jox ñu war ko jotale ñi nga xam ne ñooy bindee fi kon suñu borom bi subhaanahu wa dafa daf leen a wax ne leen na ngeen jotal li nga xam ne moom la leen suñu borom bi subhanahu wa taala yónni waaye bu leen ci nëbb dara kon bu fekkee ne dañ ko nëbb kon mooy loolu mooy ñàkk a jotal li nga xam ne moom la leen suñu borom bi subhanahu wa taala yónni ci ñuy nëbb euh, message yi nga xam ne moom la leen suñu borom bi subhanahu wa taala jox te ñu koo eggale ci mbindeef yi kon suñu borom bi subhanahu wa taala daf leen a digal ñu jotal li nga xam ne moom la leen yónni kon duñu am sañ-sañu mukk di nëbb message yi nga xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa la jox ñu war koo jàllale ci mbindeef yi comme ni nga xam ne ñetti melokaan yële mooy kóolute ak dëggu ak jotale ni nga xam ne noonu la war a nekk ci seen jëm ñetti melokaan yi nga xam ne moo di seeni safaan di euh, wax lu amut ak wor ak ñàkk a li nga xam ne moom lu leen suñu borom subhanahu wa taala yónni mooy nëbb li leen suñu borom subhanahu wa taala yónni noonu la jombe ci ñoom ni ñett yee ware ci ñoom noonu la ñetti yi ci ñoom yonente yi alayhim salaatu wasalaam waaye nag teewut am na ci yoo xam ne dagan na ci seen jëmm ñoom yonente yi alayhi salaatu wasalaam mu nekk ci seen jëm euh, tey du doon lu lu araam mukk moo tax sëriñ bi wax ne wa jawwisan nanga nga dagal na daganal maa la nga xam ne laa yu addi du bijji maanaam du andi min aradin ci gaar lil bi ñeel ayib fii xaqihim ci seen aq misla marot kem feebar mën nañoo wax ni yonent sëriñ bi nee na na daganal lépp loo xam ne maanaam du andi ayib lépp loo xam ne du waral ayib na nga ko daganal ci àq yonent yi alayhi alayhimu salaatu nga daganal ci seen àq ne loolu mën na leen a gaar lépp loo xam ne bu leen gaaree du tax loola doon ayib ci ñoom loola mën naa doon mën naa euh, gaar yonente yi alayhimu salaam moo tax mu ne misla marad kem kem feebar anaytu jublu naa nag ci feebar boobu mu wax xayra munfirin budut aji foñloo feebar boo xam ne du dawloo maanaam du tax ñu lay daw kon daganalal ci àq yonente yi ne ñoom dagan na ci ab yonent mu feebar te loolu mën nañ cee jël misaal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne bi nga xamee ne ci lay génn àdduna li ko yóbbu feebar la boo xam ne moo ko tëraloon moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam doonoon feebar bu métti waaye nag doonut feebar boo xam ne day tax nit ñi duñ ko mën a jege wala day tax nit ñi ko daw comme feebar yooyu lu mel ni ngaana masalan wala lu mel ni siti comme feebar yooyu nga xam ne bu ko nit amee dañ koy ber di ko beddi du mën a jaxasoo ak nit ñi wala feebar yoo xam ne day tax ñu leen di daw feebar yi demee noonu yonente yi ñoom yooyu du dagan muy nekk ci seen jëmm ndax ñoom dañoo war di taqoo ak mbindeef yi fu ñu toll di leen gindi di leen jubbanti kon feebar bu tax ñu leen di daw bu ñu ko amee loolu day gàllankoor woote bi nga xam ne moom la ñuy woote di jëmale doomu aadama yi ak mbindeef yi suñu borom bi subhanahu wa kon bépp feebar boo xam ne du tax nit ñi di leen daw rek mën nga koo daganal ci seen àq ne loolu mën naa gaar ab yonent lu mel ni euh, bopp buy métti lu mel ni euh, sibiru yooyu yëpp mën naa dal ci seen kaw ñoom yonent yi alayhim salaatu wasalaam te du wa ci seen ak yonent dara waka nikaaxin ak lu mel ni takk soxna waka ak lu mel ni takk soxna loolu itam yonente yi alayhim salaatu wasalaam ñu ci bëree bëri amoon nañ ay soxna ba ci suñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne moo fi mujjoon amoon na ay soxna uh, yu uh, takkoo takku yorutoon benn yorutoon ñaar amoon na ay soxna yu bëri kon loolu daf ñuy tegtaleel ne dagan na ci seen àq itam ñoom yonente yi alayhim salaatu wasalaam ñu takk soxna te takk soxna itam yonente bi sax daf ñu ko xemmloo ba xemmemloo ba ne an nikaaxu sunnati wa man raxiba an sunnati falaysa minni dane takk soxna day dafa bokk ci sama sunna te képp koo xam ne danga dëddu maanaam danga ñàkk xemmeem li nga xam ne mooy sama sunna te mooy takk soxna nga bañ a takk soxna na nga xam ne bokkoo ci man kon loolu li muy tegtale mooy takk soxna lu daggan la ci seen ak ñoom yonente yi alayhimu salaatu wasalaam comme ni nga xam ne noonu la euh, feebar dagane ci ñoom ak yeneen ak yeneen ndax takk soxna lu tax ñu leen di daw waaye takk soxna itam du wàññi li nga xam ne du wàññi ci seen ak euh, yonent dara wal bayan ni ki noonu ak jaay wa ak jënd ku ne xam na ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana commerce te commerce ko wax wax jaay ak jënd kon jaay ak jënd itam daganoon na ci ñoom yonent yi alayhim salaatu wasalaam waaye nag doon nañ ci euh, dañ ciy sàmm bu baax a baax li nga xam ne mooy euh, ahkaam charan yi muy attey euh, yi di ko bàyyi xel bu baax a baax ngir ñi nga xam ne ñooy mbindeef yi mën leen cee roy bu baax a baax a baax kon jaay ak jënd yitam lu dagan la ci àq yonent mu def ko te loolu mën nañ cee jël yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon na commerce bu baax a baax a baax ci eh, eh, ay jamono moo tax mu ne yaati ka yàlla na la dikki alfalaax ak texe wal machi ni ki noonu ak ki dox li suuxi ci marché yi wa aklin ak lekk wa sharaab akum naan li annahu ndax loolu kat yaziduhum da leen di doll xayra sawaabin gi tuyaaba maanaam gën gi yiw nee ba tey dagan na ci seen àq ñoom yonente alayhimu salaatu wasalaam lu mel ni dox ci marché yi maanaam di jafaso a nit ñi ci marché yi di jëfa di jëflante ak ñoom ci jaay ak jënd ak leb ak yépp yi nga xam ne moo aju ci jaay ak jënd waaye itam dagan na ci seen ak muy lekk ak naan euh, waaye itam noonu la dagana ci seen euh, àq li nga xam ne mooy nelaw ak noppalu yooyu yépp nga xam ne Euh, amul benn jafe-jafe boo xam ne daf koy jur wala lenn luy nuru ak matadi loo xam ne dañ koy matadi loo ci seen mission bi nga xam ne moom leen suñu borom subhanahu wa taala doxloo yooyu yëpp dagan na ci seen àq ñoom yonente yi alayhim salaatu wasalaam ndax loolu jëf giñ koy jëf loolu daf leen di dolli tuyaaba rek daf leen di dolli tuyaaba ndax yi nga xam ne moo dagante bu ñu ko jëfee am ci tuyaaba bu ñu ko defee itam nit ñi dañ leen ci ko defee tuyaaba ja gën a bari moo tax mu ne loolu lépp daf leen di yokk aw yiw waaye daf leen di yokk tuyaaba kon mën nañoo tënk ne lépp loo xam ne euh, maanaam lu dagan la te bu xewee ci ab yonent du tax ñu koy daw du tax euh, itam kenn di ko euh, moytandiku nee na yooyu yëpp yu dagan la ci ab yonente mu nekk ci moom waaye yu dagan ci ab yonente la mu def ko ndax du wàññi ci ak nubuwaam dara waaye du wàññi ci ak risalaam dara bilax ci safaan bi sax dañuy wax ne loolu daf koy dolli e, tuyaaba daf koy dolli e, tuyaaba ci jëf ji nga xam ne moom lay jëf loolu ba ñu mën ko ci kon ni nga xam ne noonu la amee lu war ci seen àq war a nekk ci seen jëm am yoo xam ne noonu la jombe mu nekk ci seen jëmm niki noonu yi tamit am na ci yoo xam ne dafa dagan mu nekk ci seen jëmm ñoom yonente yi alayhimu salaatu wasalaam te bu ñu ko defee loolu ay euh, tuyaaba rek la leen di dolli wallahu taala alam ñoo ngi tub bu baax tey jégglu di wàcc foofu kàddu gi wax ni in uridu al islaaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah